abdul karim gueye da nga laal ñaari mbir yoo xam ni ku leen bëgg laal faaw nga taxaw ci lu dëgër taxaw ci lu leer soog def bu amul boo ko defee rek lii la dal moo lay dal muy patrioti yi <laughs> ragal naa ku xamul patriote yi rek da ngay laaj Macky Sall Macky moo lay wax ana kan mooy patriote keneen ki nag di ko sell ki muy président Ousmane Sonko première ministre ñii ku leeni laal da nga war a taxaw ci lu leer ñetteel bi sax bokk na ci da nga laalaale muy tutine état te li nga ci wax lépp ci ñetti yi amu ci benn boo xam ni mën nañ ko natt ci dara mu taxaw amul gaadu tere nag am na ci say biir wax yoo wax yoo xam ne xëy na mënoon nañ ci sax xalaat mais wax boo ko waxee donte dëgg la li ngay wax su tegewul ci yoon mooy rekk ba jooy ba ba wax jooyee te ñu laaj ko mu ni ñeent lay jooy yooyu bu amul ci sa wax la nga wax même bu dee am na njëriñ dutu am njëriñ bu dee dëgg la ay fen lay mujj doon ak lu mën a doon day yàqu loolu nag mooy sa problème mais gars yi nag ñëpp ñii ñi ngi naan dafa dof ñii di wax dafa soxor Abdou Karim Gueye benn problème la am te man maa leen koy wax ba mu leer balay boobu nuyu naa leen bu baax fan wu gudd ànd ak wér sutura ak barke jàmmi àdduna ak àllaaxira yan ñu ko yàlla boole defal Abdou Karim Gueye benn problème problème rek la am mooy ëppal dafa ëppal c'est-à-dire day day dépasser moom bari mi lay dépasser moom laf, mom da fay exagérer eppal moy problème Abdou Karim dafa teeyul da dul nit ku téy dal da ci amul dara 8 mars 2021 ci terrain bi nag li tax kenn du ko fàtte dafa bëri ay image historique man ci procès boobu noonu ci terrain bi ci laa xamee ëppalu Abdou Karim jour boobu bi ñu jógee ci tribunal dañu dox ñun ñëpp dañu dox fan lañ jëm siti kër góor gi kër Ousmane Sonko mooy suñu sible fa lañ jëm ñu ànd nag mais ful bi nu mu toll kenn mënula ko wax image yi ma leen ci wan yëpp man maa ko filmer sama téléphone gis nga dispositif bi ñu génne keroog ñun ci tribunal bi. lañu fa tuur ci police ak gendarmerie mais mënoo ko mënoo ko xayma ci yoon bi noonu noonu ba mais kenn mënul nattable loolu mais Abdou Karim Gueye keroog ñun bi ñu àndi ñun ñëpp ful bi dañ doon dox yenn saa yi ñu daw yenn saa yi ñu dox yenn saa ñu daw mais mais bi ñu ñëwee ba RTS RTS bi ñu fa accès RTS aussi ñoom xëy na jàppoon nañu ni dañu nekk ci ay risques ngir bu lu mel noonu amee dañuy dal seen kaw moo tax ñun keroog aussi bi ñu ñëwee ba RTS mais dispositif bu am solo lañ fa fekk ci police ak gendarmerie ñu taxaw entouré RTS bi di ko sécuriser mais dañu ñëw ba ci RTS bi te ñun déjà avant ñu ñëw ci RTS bi rek amoon na ay quelques problèmes ñun ak takk der yi parce que ci biir ful bi da ciy am ñoo xam ni bu ñëwee ba ci takk der yi dañuy bëgg a am nu ñu doxalee koi te ñun keroog mbooloo bi noonu mu toll objectif bi du woon lenn lu mooy jóge foofu dem kër Ousmane Sonko pour manifester pour àdduna bi yëpp gis ni ki ñu àndal kii la ànduñoo régime bi fi nekk ànduñoo gouvernement bi ba keroog leneen ak si ñu soog ko war a def mais jour boobu lu mel noonu bu ci amoon mais musiba maa ba kumba lay doon bu kenn dul regle loolu moom leer na. mais ñi ngi koy négocier booy saa yu ñu ruubee bu ñëwee ba ci takk der yi ñu gérer jàll. mais ñun loolu lépp ñu ngi koy def ci kanamu Abdou Karim mooy gis léegi nag dañu ñëw ba ci RTS bi keroog Abdou Karim ngay jékki-jékki bëtt mbooloo mi dëgmal RTS. ma ne mais kii lu muy def nii Abdou Karim Gueye man maa ngi tudd Cheikh Diagne keroog ki njëkk a topp sa ginnaaw par rapport ak am na yeneen deux gars xaw ma trois gars bi nga fëlee ci bi nga bàyyee mbooloo mi jëm RTS man bokk naa ci ñu njëkk a bàyyi mbooloo mi topp la pour mën la interpeller ci xamal la ni non ñun lii du suñu cible ñeneen ñi nga xam ni ñoom ñoo ko defoon ci ñu njëkk a jug topp la ragal naa yàq ñoom yéen a bokk mouvement su ma jumul mais mais par rapport ak ni ñu waxee ci ni ma déggee dafa mel ni ñoom yéen a bokk mouvement nitu dëgg. man maay ki jàppoon sa mbagg xëcc la ni la Karim eh nga ne ma naam man la ñun suñu RTS taxu ñoo jug benn zone taxu ñoo jug kër Ousmane Sonko fa lañ jëm fi situation bi tollu laajul yi ngay def nga ni ma noo xam naa ko mais dama bëgg a taxaw wane ni suñu télé la jàllale suñu message ak suñu naqar ma la mais actuellement nii du nekk fii dèjà mënoo fa gis caméra fii caméra yëpp dèjà ay takk der moo leen remplacé léegi li ñu bëggoon dëgg-dëgg du àgg nañu dem man maay ki jàppoon sa mbagg te xëcc biif man la woon man la Cheikh Diagne man maa ko defoon mais Abdou Karim Gueye dafa fipp comme ni mu taxawee nii di jaay sañ-sañ noonu la ma jaayee sañ-sañ ni moom noo day kii yeneen gars yi après nag bi ñu réactionné ci laa xam ni peut-être ñoom ñoo bokk mouvement kenn ci gaayam yi ni ma lii mooy problème Abdou Karim lii lii mooy problème Abdou Karim finalement nag convaincre nañ ko dañ koo convaincre mu ànd ak ñun ñu continuer kon Abdou Karim kenn ci ñun gënu ko nekk patriote kenn su ñun gënu ko bëgg réew mi mais nag coow li mooy jikko yi yamul niveau yi yamul problème am mooy dafa ëppal Abdou Karim ëppal mooy problème te pour nga ëppal nag faa mu fekk li ngay def yenn saa doo ko xam parce que ki xam li muy def mun a ëppal ki xam li muy def day nattale toujours li muy def ci xam-xam da koy nattale ci jamono bi mu toll da koy nattale ci contexte bi da koy nattale ci par yooyu lay def moo tax mënul ëppal mais Abdou Karim dafay ëppal te ëppal man li ma gëm mooy képp ko koy def rek li ngay def dese nga ko xam la preuve ci na ko xam bu demee ba taxaw naan patriote yi dañu nii dañu naa yi mu ci wax ba tudd biir saal bi mu ni pourquoi foofu rek ngay xamee ne Ousmane euh, Abdou Karim Gueye dafa juum ci ngay xamee ne aussi moom li muy wax xamu ko ci ngay xamee ni tegewul ci xam-xam ci ngay xamee ni tegewul am na nag gars yi nag jiiñ nañ ko lañ ko jiiñ ni moo tax mu wax ko mooy lan moo tax image Ousmane Sonko jàll ci écran géant bi ñëpp tëb di Ousmane Sonko Ousmane Sonko ci biir saal bi te mu nekk prestation de serment ñu fay def yooyu. li lay xamal ni Abdou Karim foofu li nga wax wax taxawul fenn parce que yow jàpp nga ni yow ñi koy def dañu dof ñi koy def duñu ay patriote ñi koy def ay taalibe lañu ainsi de suite mais Abdou ñoo ñu doon jug ñëpp di tàccoondoo Sonko. amul ci kenn koo xam ni mën nga ko tey jii tey bu dee diplôme bu dee diplôme te nit ki ñu ngi koy am na ay nattukaay yu ñu mën a natt bu dee ci diplôme yow foofu ñu la ëpp ay diplôme ñoo fa nekkoon di tàccu Ousmane Sonko kon yow foofu doo taxaw bu dee ci téere yi ñu la raw ci téere yi ñoo fa taxawoon di tàccu Ousmane Sonko foofu doo taxaw bu dee ci alal ñu la ko ëppale bu dee ci wër àdduna ñu la ko ëppale bu dee ci âge ñu la mag mën laa jur bu dee ci jamono bu dee ci liggéey bu dee ci lu mu mën a doon ñoo ñu ngay wax ni ñoo taxawoon di yuuxu tur Ousmane mooy ñi nga xam ni mbooleem ci yii ma la wax bu ci mën a doon ñu la ko ëppale ñoo taxawoon di ko def. kon ñooñu boo leen bëggee jiiñ lenn noo leen di jiiñ la muy la muy tegtale mooy yow ci sa bopp yow am problème parce que nit ki li nga koy li nga koy xase wala li nga koy dale day fekk nga ëppale ko ci jaar-jaar wala xam-xam wala dayo lii mooy problème Abdou Karim du leneen bëgguma ci gën a xuus parce que patriote la mais nag vraiment li yi mu fi wax nii yëpp du waxi dara man su ma ci yeexee wax nii parce que maa ngi jégalu sax fan yi dama xawoon tawat moo tax ñuy suivre seen bi yëpp sentir nañ ni fan yi xaw naa ci raar ba ci ni traité vidéo yi boo seetloo mooy loolu dama feebaroon moo tax sax ma yeex ci wax man daf ma metti affaire bi mais lu mën a xew rek nañu jàpp ni Abdou Karim Gueye patriote la mais nag Abdou Karim beneen bi wane ni rek li nga wax du xam-xam Moi, président Diomaye son excellence premier ministre Ousmane Sonko actuellement ñu ngay wax mais ay ay ay 3000 détenus politiques nous leen que 11 personnes mais war nga mais kan que leen avons même bu que ñom ñoo yor gouvernement bi actuellement ni ñoom ak yow avons a ci justice parce que déjà même ki ñu def ministère de la justice muy Ousmane Diagne moom sax jëlagul fonction yi fonction yi entre tey lundi suba yi la koy jël te balaa mën a wax nañ génn kii nañ génne kaa xanaa moom sax mu jël fonction kon déjà loolu rek ci problème mu état daanu nga bu dee ci problème mu patriotisme daanu nga bu dee ci problème euh, lu fànn buñ ko jël danga nga daanu ba nërmeelu yooyu nag dañ ko war di moytu mais patriote yi daf ci bëri ñoo xam ne ñu ngi ci biir mais vraiment ñii ñu ngi toog ci écran di telli telli ci terrain bi ma dund kook ñoom gis ni ñuy doxale mais dama naan pat rek am na si ñoo xam ne ñu ngi ci écran yi di dëggal seen bopp di wax ñii ña ngay vaar nit ñi ñii ña ngay rajax rajaxi telli telli mais ko ci jëflanteeg ñoom ci wàllu patriotisme bu ci jëflanteeg ñoom da ngay da ngay jaaxle da nga naan kii du kii moo doon woote bëgg Sénégal bëri na ci mais yàlla ñu yàlla defal sutura mais gars yi nañ ko comprendre loolu mais nag Abdou Karim génnal ci li nga nekk Ousmane sonk nag moom mënoo teree ñu xëy di ko wax di ko kañ di ko yëkkati ak di ko dara darajaal ak di aj turam ca kaw parce que moo doon ci réew mi loo xam ni ñi maaseek yow ñi maaseek sa wayjur wu góor ñi maaseeg sa maam ñoom ñëpp jéem nañ ko jàllul woon moom mu jéem ko mu jàll yàlla may ko fi lu mayut kenn ci ñii ma wax te ñu maaseeg say loolu la yàlla dogal nag loolu nag faaw nga nangu ko moo tax dañ koy darajaal di ko yëkkati di ko kaweel fan wu gudd ànd ak wér sutura ak barke jàmmi àdduna ak àllaaxira yal nañu ko yàlla booy defal ba beneen yoon incha allah.